Diobass ah, ah. bi ma ñëwee léegi ci eh, manquement ndox mi ci biir Diobass xel waru ko woon mën a nangu parce que Diobass da di ndaa loo xam ne wala dex boo xam ne eh, bare na ndox barewaay boo xam ne ñu samp fi ay forage yoo xam ne ñu ngiy déverser ba Fatick Ndiosmone Palmarin

bare na yoon yoo xam ne yi dafa dagg te kenn mënatu faa jaar bu ma jëlee exemple yoonu Babac nga xam ne moo jóge Palaan jaar Taten Séeréer jaar Babac jaar Séssène bi Alioune Sarr dekk jaar euh, Kër Ibra Fall ñëw Kër Thiel yoon woowu wax dëgg yàlla nit ñu ko defee rafetul jekkul parce que jàpp naa ne à un moment donné en conseil des monsieur Alioune Sarr Macky Sall présenté na leen euh, maquette bi nga xam ne réalisation autoroute Ila Touba ma jàpp ne bu boobaa Alioune Sarr war naa mun a xam fan la yoon woowu di autoroute Ila Touba bu jaaree ci biir Diobass fan fan lay impacté négativement wala boog su ko xamul mu wàcc à la base ñëw ci commune am mu waxtaan ak mbooloo mi laaj leen seen xalaat. ci ana fan ak fan la yoon wi war a mun a impacte négativement parce que yoonu Baol boobu dañ koo fat fi mu nekk nii boo jógee Thiès war a dem Taten wala Baba tu seras obligé nga jaar Kër Baara Kayre ci buntu boobu ma foog ne population bi ëmb yoon boobu wax dëgg yàlla population bi ëmb yoon bale moo ko ëpp beneen bi mooy boo demee Tawa li ma jàppoon mooy autoroute Ila Touba bu waree traversé dëkk ña dëkk boo xam ne bu waree traversé dëkk day doon ñoom ñu jaar ci kaw ñu bàyyi population di jaar ci suuf bu ko defee ña ca bëj Saalum mën a di jokkalante ak ñi fare ca bëj bu ko defee euh, seen jur gi ak seen bagage yi di mën di jaar ci suuf mu nekk loo xam ne li lu am solo la souf si aussi ni ñu koy caxat nous man sama gis-gis ci si moy souf dans deug deug ko sax parce que souf euh, un hectare un million moy 100 francs le mètre carré xam ngeen ne sais reelu na nous, Nous nous, fi aussi jaar nañ fa def lu mel fu melni ngol nañu dekk vraiment bu nit ñi amatuñu fu jaar mbir mu ñu war a waaw naa doy naa doy naa doy naa doy naa doy naa xat kon bu ma jógee ci loolu xam ngeen ne monsieur le maire waroon naa nekk koo xam ne kii te ñu ngi koy wax premier ministre Abdoul Mbaye ak le député Aylin Tine ay réforme waroon a am ci mbir moomu parce que bëgg a nekk ministre bëgg a nekk maire fan nga nekk ci ñaar yooyu moo xam ndax yow ndakaaru ngay faral di nékk wala ci dëkk bi nga war a nekk ñu gis ne euh, commune bu nootoo Diobass bare na nit jóge fi mu jógee war fa lijjant dara mu nekk loo xam ne ni dafay jafe parce mu monsieur le maire est absent à tout moment monsieur le maire est absent à nit ku absent nag yaakaar naa mënut a faj soxlay dëkk bi ma ne foofu état bi war na xoolaat mbir yi foofu nit su waree nekk maire war ta mën a nekk leneen loo xam ne ni day gàllankoor li nga xam ne moom la war a lijjanteel waa dëkk bi bu ko defee nag euh, li nga xam ne moom la xalaat. mooy teewaayu meer ci gox bi dafa am solo loolu nañ ci xalaat ndax bu boobaa dina mën a faj jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk jafe-jafe gox bi maire aussi war na former population am war na leen yee ba dootu ñu nekk ñoo xam ne ñuy da leen di dëpp néeg rek di leen jëriñoo bu élection ñëwee nga indi xaalis foofu nag laay tëje parce que li duuf ci nag bi xëjul ci cin li may wax nit ñi ne nañu moytu nañu moytu corruption bi ci biir élection bi jënd conscience ci élection bi loolu jaaduwul nit ñi duñu di bétail nit ñi dañu am ngor am àq ak seen yelleef am seen dignité nit ku am dignité nag waruloo nangu mukk nit toog benn moment rekk ñëw di la jox xaliss surtout euh ci ay moment yu opportun yu mel ni nga xamné bo ñëwé di jox nit xaliss bu deful warna xamné li tax nga koy jox xaliss comme ma ngi leen di wax né xaliss bi ñuy joxé du xaalisu salaire jàpp naa ne le salaire est sacré ken du jël salaire am di ko mettre à la disposition de qui que ce soit mais xaliss bobu sen xaliss la yéen ngi fàttali ko amna jamono yo xam nit ñi dañu doon fay impôt bopp bu nekk 1000 francs béy juróomi dërëm nag ñaar fukk loolu buñ ko dajale woon loolu la ñuy doon yóbbu trésor pour mu doxal commune yi wala mu doxal communauté rurale yi ba ñu demee ba gis ne comme retour amul population bi bañ naa fay impôt léegi ñu jël impôt boobu dëxañ ko ci seen marchandise bi nga xam ne benn bu set boo demee bitig bi jënd ki magi wala almet yaa ngi fay sa impôt kon xaalis boobu seen xaalis la bu leen ko joxee

monsieur le premier ministre Abdoul Mbaye da ci teg maama Hélène Tine député kilifa yi dëkk bi yu aada ak yu diine bi mais chef de village yi aussi mu jógaan ngol fañee jobaas ku lim ju di kontaan ci seen mobilisation di kontaan ci sa mobilisation parce que seen mobilisation dafa am lu mu wone en tout cas man dafa am li ma jàngee ci seen mobilisation mooy da ngeen bëgg ànd ak Jean-Baptiste notre frère ngeen tekki jëng yi jëng yi dafa yàgg je n'ai rien contre personne mais dama seetlu teg bët ci coonoy jobaas foo laal nag fa nga koy fekk jëng yooyu fa nga koy fekk du ci yoon yi même bu fekkee ne sax jéem nañu nax nit ñi pour jaarale fi benn yoonu latérite boo xam ne lu muy def ci dégâts ci wàllu wér yaram moo ëpp foofu li muy faj ci wàllu déplacement ay naxe la ci wàllu marché ci wàllu faju ci wàllu école gisuma benn taxawaay bu jëmmal jobaas walla bu teg jobaas ci sur les rampes du développement gisuma

bu wéyee bu fekkee ne ci wàllu droit la am nañu ay doom yu mat sëkk ci wàllu droit bu dee ci wàllu éducation la am nga ay spécialiste ci wàllu éducation bu dee ci wàllu développement la aménagement du territoire am nañ ay doom yu mat ay ay ay docteur yu liggéey banque mondiale fii lañ juróo fii lañ màggee doomu jobaas la dañ ko newoon boo bëggee defar Jobaas da ngay woo ñooñu ñu toog wër la ñooñu ñoo lay jox xel nga defal lu ñuy wooyee PIC le plan d'investissement communal loolu lañ ko wax mais je ne sais pas pour quelle raison ou bien il est complexé ou bien il n'a pas compris il a tourné le dos aux gens de Jobaas tey dañ koy won suñu ginnaaw nu mu ñu wonee ginnaawam. ëppalewuñu dara gën ñu mën dara gën ñu xam dara au fond dafa jot nag yéen jeunesse bi surtout lay wax jeunesse bi ak jigéen ñi parce que jigéen ñi lay gën a nax ak seen groupement financement yooyu yóbbuwuñu fenn yooyu yàgg yuy développé dëkk bi la ñu bëgg mais du financement yuy dem eh, tey ak suba mu mu yem fa loolu taxu ñu jóg mais nañ jël ci wàll yëpp ci wàll yëpp nañ ko jël léegi nañu fii terrain multisport bu saañ anam fala jobaas amul baba amul jobaas amul saange amul taaten amul jungaan amul fen mu dig ñu fi un marché anamu kenn gisu ko éducation bi lu mu ci def sunu xale yii yi jàng nii ci soit lycée soit CM ma ne la xamuñu luy ordinateur buñ ko xamul seen kër xamuñu ko ci école. tàccu wax ji wax ji du du gudd li ma leen di ñaan mooy parce que commencé naa dégg commencé de naa dégg ay ay wax ay histoire bu leen kenn woo ci histoire ngeen wuyu ko. ñun programme la ñuy yor programme la ñuy jaay nit ñi wax du wax ju ñaaw du xasante moo ñu tax a jóg xam leen ne après élection yi dañuy dalu dëkkaat fii ci dëkk nañu rafetoo amul histoire amul xeex amul xuloo amul ŋaayoo nañu nekk benn mais nañu am fulla ci li ñu bëgg li ñu bëgg mooy goos bii Jean Baptiste Jean Baptiste moo leen ko jàngal xam leen ko bu baax Jean Baptiste bañ na ko bu bëriwul wax bëriwul wax parce nitu jëf la du nitu wax soxlawul lamiñ bu saf soxlawul lamiñ bu neex moom day jëf ñuy gis loolu la ñu xam cee Jean Baptiste su ko defee ñun ñëpp muy xale muy xale muy góor muy jigéen non non non non non ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant eh, li may wax nag bariwul waa Sange laay waxal nañu am fulla ak fayda li ñu bugg a def nañ ko def ci jàmm ak salaam def ko ci fayda ak fulla kii ngeen di taxawal na am dignité am fulla am fayda am fit xam ne kat li ngi taxaw tey képp ku ñu ko defal war nga am falla war fayda war nga am fulla war nga am dignité war am fit eh, dafa am li nu Abdoulaye Wade jàngaloon mu ne sama parti bii ku bëgge doo fekkee njariñ li ku ragal doo fekke njariñ li ku yàkkamte doo fekkee njariñ li mooy lii nag dama ne dinaa wax Aliou Sarr ku yéeg fukki at ñaar defoo li nit gis ne nañ ko woteel su ngeen ko wotelee yéen a xam yéen waa Sange laay waxal de na ngeen am fulaak fayda taxawal ki ngeen bëgg a taxawal ci dignité ak fula fayda ndax doomu jobaas la doomu sànge la doomu jobaas la maa ngi leen di ñaan lii ngeen def doyul de xam ngeen li doy carte yi na ñoom fula ak fayda se respecté carte yi am jom am fit am fayda sànni carte yi sànnil ko kii nga xam ne moom moo leen ki tax a jóg loolu rek laa doon wax ngeen dimbale ma may ma maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant ndax man wax dëgg fi ma tollu xam naa ne invitation bi moo ma indi mais fi ma tollu tey politique néew ma duma ko def de ndax am naa ci njariñ tey kuma ma ci àndal hôpital damay jiitu nga topp ma lépp loo soxla mën naa la cee dimbale te loolu parti moom a ko may. parti Ablaye Wade moo ma may loolu tey sama tura nga fa kon li ma leen di xamal daal coow bi lépp mooy carte yi na ngeen am fulla ak fayda woteel kii ngeen di yaakaar dana defar Diobass dana respecté dana liggéey Diobass loolu rek laa leen di naan maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant. Euh, mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. Euh, bala may def dara damay ñëk nuyu chef de village parce que motax ba li am euh, nuyo bi itam di ci teg monsieur le premier ministre di ci tegaat suñu député elentine ak délégation bi mu euh mën na ne wax ji du bari parce que li ñu waroon wax yépp suñu kilifa yépp wax nañ ko. mais nag li may wax mooy euh, damay ñaax rek jeunes yi jeunes yi li ma leen di ñaan mooy mooy jeune waa Sange wax naa fi keroog nee naa leen yéen am ngeen chance boo xam ne kenn amu ko fi mooy ñu ngi tabb maanaam jeune boo xamante ne xale la te yéen itam yéen yéen a ko war a dooleel ñun nag li ñu bëgg mooy Jean Baptiste Seck

Euh, nekk na ndam boo xamante ne tey jii mën naa ne ndam la sax parce que lii jeetaay bi boo xoolee ni mu ni mu mel ah am na li muy firnde ah incha allah li ñuy ñaan mooy jeetaay bi ñu nekk nii li ciy ñaan ni ni ñu nekkee nii yàlla may Jean Baptiste le 23 janvier mu may ko ndam bu sedd guy parce que li ma leen di wax mooy euh, dafa mel ni Aliou Sarr ah. moom moo fi maamaan maanaam moom moo fi gën a nekk intellectuel parce que boo xoolee Sange maanaam borom xam-xam ñoo fi nekk ñi ko dàkk jàng ñoo fi nekk ah ñi ko ëpp xel ñoo fi nekk ah mais nekk fi di eh, nekk fi ñaari mandat yoo xamante ne tey jii ah parce que mënuma conserver nit ki ma léegi ñu may la ñaari ñu may la di eh, ñu mënuma nit ki ñu may la Ah, nga am 12 ans ba pare ngay 3e hein ah, mais lolu kan moo d'accord lolu xalaatuñ ko ainsi fu mu toll na ah, dem ñun doyal nañ ci mom seuk na dem dem ñun doyal nañ ci mom waaw senegal assalamu alaykum asalaamaaleykum jobas assalamu alaykum mbokki sangé ñoo ngi leen di nuyu yeen ñepp kenn ku ci nek ci turam ak santam ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci bisa bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant ñëpp rawatina gi ñu nek di nuyu suñu ministre Abdoul Mbaye di ci teg suñu député di ci tek mbooloo mi yëpp rawatina nak Adama Jaxate ndax lépp mooma ginnaaw lep lépp Adama Jaxate la kon Adama jërëjëf Kadu yi nak mën naa bañ bari ndax sama naataangoo yi fi jitu wax te man jobaas rek moo ma ñor Kër Ibra Fall rek moo ma ñor ndax li ñu wax rekk li ma gën a naqari ci jobaas ci Kër Ibra Fall mooy sunu yoon wii ndax ñun tey yaakaar naa li jóge Kër Ibra Fall jaar fii ci pax mi bu matul fukki dëkk ak juróom ëpp na ko te tey ku ci jóge fii jëm Thiès gan ni mooy ville bi dangay am problème ku dem Thiès ñu ni nag ñun am nañ maire am nañ ministre kon loolu defe naa lu doy waar la ci ñun lu ñu lu ñu naqari la nag dañ cee mënu dara waaye lu ñu naqari la ndax Kër Ibra Fall tey bu ñu naanee am ndox ña ngi koy jëlee di commune rurale Fandène Kër Ibra Fall ku fa naanum ndox yaa ngi koy jëlee di commune rurale Fandène te yaakaar naa bu ñu naaneem ndox buñ ko tegee ci yoon commune rurale Noto bii fi la ñu war a mën a jëleem ndox mais du commune rurale Fandène te Kër Ibra Fall bu ñu guuxeem ndox commune rurale Fandène lañ ko jëlee. mu doon lu ñu naqari lool nag ñun waa Kër Ibra Fall gépp diggante Notto ak Kër Ibra Fall 7 kilomètres la kon yaakaar naa ci wàllu wér-gu-yaram boo jógee Notto jëm Kër Ibra Fall jógee Kër Ibra Fall jëm Notto jógee Kër Ibra Fall jëm kees moo ñu ko gën a yomb te chaque jour nag ñu am ci ay problème ci wàllu wér-gu-yaram kon yaakaar naa ne loolu tamit lu ñu naqari la ndax Kër Ibra Fall mën naa ne jobaas gii bu nu génnee sànge génne jungaan dëkk yi ko fi gën a rëy bëriwul kon ci dëkk bi lañ bokk waaye yaakaar naa nag boole wun ñu ci dëkk bi nax mën naa ne Alioune Sarr élection yi passé la mujjoon teg tànkam péncum kër Yoro Fall te ba mu ñëwee daa taxaw ni bu ngeen ma defalul duma leen defal te baat boobu naqari waa kër Ibra Fall lool nag am na luñ ca faj nag ndax yaakaar naa defaluñu waaye ñu ne defaluñ ko noonee mu ko waxee woon noonu lañ ko doyee rek élection yi nak ñun wa Kër Ibra Fall ñu jog taxaw tak suñu sœur goor ñi tak suñu tuba ñu and ak jeunesse bi nak jeunesse bi jappalé ma ma leen di sante nak jeunesse Kër Ibra Fall ma ngi leen di sante bu baax ndax ñu ngi ci sama ginnaaw gis na niñ ma def jeunesse Kër Ibra Fall sante na leen gërëm na leen te fi la koy waxe ci digg mbooloo mi ñepp diko deg li ñu bëgg nak ñun moy li nga xamanteni mom lañ jublu yel nañ ci yalla suñu borom ba may ndam yal nañ yàlla may ndam yal nañ yàlla may ndam ci daraje Seydina Mohamed jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew yépp maa ngi leen di nuyu yéen ñépp ci seen tur ak seen sant jiital ci nuyoo bi suñ monsieur le ministre Abdoul Mbaye di ci teg madame Hélène Tine député madame Hélène di ci teg monsieur Adama Dia kulim Dioum may jéggalu rek ndax dafa xaw a guddi di gërëm ñëpp di sant ñëpp mboolem ñi ànd ak délégation bi di nuyu di sant di gërëm suñu kilifa diine yi nekk ci jobaas yëpp ak suñu magi dëkk yi ak suñu kilifa aada yi nekk ci biir jobaas rawatina ngi di leen gërëm di leen sant ci ñaan yi ak kàddu yu rafet ak xel yi ñuy gungee di leen ñaanal yàlla bàyyi leen ci suñu kanam ba ñu gën a yokk mu gën a yokk seen wérgum yaram ak seen wérgum fit ñu gën a nekk ci suñu wet ndax seen dund am na njëriñ su ma ci jógee di gërëm waa baas ñëpp ñi fi teew maa ngi gërëm waa Jobaas ñëpp maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak sant di leen gërëm di kontaan ci yéen ni ngeen ñu jàppalee bés bi di ngeen jàppee seen bésu doom di Jean Baptiste Seck may nuyu Jean Baptiste Seck rek ngeen may mu max ci tuuti. ndax guddi na waaye mënumaa ñàkk wax ci Jean Baptiste ndax booy ànd ak nit fukki at ak ñaar am na loo mën a wax ci moom te dañu ne kat boo xamalee nit ki lu baax boo ko tuddul buy lim am ay noonam na la ci boole te Jean man bugguma nekk sa noon waaw Jean maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant yow mi jóg tey sol sa daala ba mu mat sëkk taxaw ci kanamu jobaas ne danga gis coono waa Jobaas fas yéene bokk ñoom coono yooyu wàññil leen ko jërëjëf Seck na la yàlla yokk doole ba sa yéene googu mat waaw Jean daf fi nekk di ndaw buy jéem ci dëkk bi ànd ak yar ak teggin ak dal li ma gën a neex ci moom am na ku ne sànk mbir mi jarul xuloo jarul xee waaye ku ànd ak Jean Baptiste waroo xuloo wa nga ndax xam ko day dox ndànk wax ndànk dal ndànk loolu la xam ci moom loolu la ñu xam ci sa Jean Baptiste te lu mu métti métti Jean xale la waaye mu doon def jéego ci biir sang gii rawatina Jobaas Jean Baptiste dafa ñëw fekk ñoog suñu doom yi ñuy jàngee fii ci lycée Sange bi ñu def taxaw seet moom ak moroom jàngale jàngalekat mi nekk biir Sange ak Jobaas ñu bokk ko benn jeetaay wax tënk. ne dañoo fas yéene wàcc ci dëkk bi dimbali seeni doom seeni jarbaat seeni rakk ci wàllu école bi ci wàllu jàng bi Jean Baptiste ñu waxtaan def taaw set maa ngi profité ci occasion bi tey di gërëm mboolem jàngalekat bu nekk biir sàng rawatina Jobaas ndax amel nañ leen jukkal ndax bu ñu dee wax at bu jot réussir bi di am ci lycée CM bi ba ak BFEM ni mu bëree yàlla ak ñoom la ñoom mënoon nañu des ca fa ñu nekk di jàngale te mënoon nañu des foofu ku ne xam ne day jàngale metti na semaine ba semaine ba dellu lundi ba vendredi doo noppalu nga war a toog samedi ba ak dimanche ba noppalu ci sa kër nga ne déet waaye damay ñëw fa ma dëkk jàppale samay sët yi samay rakk yi samay jarbaat yi samay doom yi ndax bu ëllëgee ñu tool ni man doon li ma doon man li ma man ñoo ànd liggéeyoo liggéeyal joobaas Jean loolu la def ñu kontaan ci trop Jean di def loolu Jean di def loolu ba ne loolu doyatu ko gis na ne élèves yooyu ñu doon jàppale juróomi at yu dellu juróomi at ci ginnaaw jàpp ren taux de réussite bi ñu am yëpp ñoom ñoom a tax mu ne loolu doyul léegi day dellu siwaat sol dàllam taxaw ci kanamu jobaas ne waa jobaas seen doom a ngi yii jéebalu naa ci yéen pour ngeen jàppale ma mun a àggali sama liggéey Jean daal di jéebalu ci kanamu jobaas ngir mu ngeen mun koo jàppale jox ko seen doole jox ko seen carte àggale ko ci seen xol ngeen fal ko maire bu Jobaas le 23 ca ngoon Jean mën a am ndam su boobaa nag liggéeyu Jean bi dina mën a mattaliku parce que ñun ñi nga xamante ne ñooy yaay yi ñooy borom doom yi te defe naa nag li nekk ci man moo nekk ci suma moroom ndax doom yaa noonu jàng nañu ba ñu mokkal lem seen diplôme bac def seen formation déposé fu ne ci Sénégal di xaar liggéey ba léegi dégguñu salaamaaleykum doom yooyu ñoo dellu si waat tey toogat ñun ci biir kër yi jàkkaarlu ñun ñun ñu leen di xool ñu ñuy xool amuñu seen pexe kon xam ngeen ne loolu jafe-jafe la te loolu metti na kenn amul liggéey ci ndaw waa Sange te ku nekk lem nga say diplôme toog di xaar ndax loolu war naa mën a nekk te ñu am maire ministre bu nekk ci gouvernement bi moo war a placer suñu doom yi waaye ràcc jëmale sa kanam mu dëll moo fi ne kon loolu Jean Baptiste yaa ñu ko mën a fajal am na ku ne sànq mbéjum kanam borom a ko mën a fajal boppam Jean yaa mën a faj mbéju kanamu waa Jobaas yow mi dund ak ñoom seen coono te xam ko duñ la wax lii ak laa duñ la présenté dara ndax ci dëkk bi nga juróo doomu dëkk bi nga xam nga li ñuy daj ku ne xam na ne jàngaloo doon nu mu méttee maire yaa ngi taxani ñii ñaa ngi jaay laalo ñii ngi jaay këriñ ñii ngi footi ñii ngi yën seen glaceeru crème di jaay ca école ba ngir mën a am lu ñuy feelee seen doom ngir mën a am lu ñuy jëndee fourniture di jàngaloo sa doom ba mu màgg doom ji war a xëy liggéeyi noppal la yaa ngay naan ah xaaral ma góorgóorlu rek saa yu mokkalee ba am liggéey dinaa sama coono dina wàññeeku tey la waalo gone ay doom yooyu ñoo dellusi ci ñun nag toog ñun di xoolante guddeeg bëccëg suba ngoon Jean loolu denk nañ la ko suñu doom yooyu te defe naa loolu bokk na ci li la tax a jóg ndaw yi nga formé ba ñu am seen diplôme ñu ngi toog di la xaar maa ngi ñaan waa Joba seen doom a ngi di taxaw temm seen kanam jébalu ci yéen di leen ñaan ngeen jàppale ko bu bés baa mu gañee jël bu leer naññ bu amul benn laam-laam bu amul layam-layam mu ànd ak yéen faj seen coono dëkk faj seen coono doom yi waa di gërëm Abdou mënu ma ñàkk a gërëm eh, ndaw yi fi taxawoon arxemes ba tey di defar bërëb bi le di defar bërëb bile bërëb bërëb bi rafet a kaar kaar kaar ma leen di gën a ñaax rek ne paree ñu de nañu gën a continuer bu kenn nelaw bu kenn tëdd bu kenn lekk bu kenn naan ndax mbir mi jeexagul te ñu ñu ko sekkalkat doy nañu war nañu fabu nañu fabu taxaw takku tem yeggale liggéey bi bés bi yemul tey rek dafa war a continuer ba le 23 allah. ba le ñu indi ndam li kon jeunes yi ma leen di naan taxaw fi ngeen teg seen tànk foofu la ñu dem te ñëw bu ñu dellu see mu feenee ñoo ngi dem te ñëw bu ñu dellu see mu gan feenee ñoo ngi. asalaamaaleykum mbokki Jobaas asalaamaaleykum waa Sange bon asalaamaaleykum sunu mbokki wàllu Jobaas man sama wax du mën a gudd. ndax jeetaay bi dafay yàgg mais maa ngi sant sunu mentor yi fi nekk ànd ak sunu leader Jean Baptiste ku ci mel ni le premier ministre Abdou mbay ak sunu bajan Hélène ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier seen taxawaay fii di remercier aussi jeunes yi fi nekk bon dana dama ne dana am ñaar ba ñett yoo xamante ne dinaa ko fi wax loo xamante ne dafa métti jeune Diobass metti jënu sànge metti jigéen ñi mooy li jëm ci ki fi nekk ñu fal ko maire depuis 2012 mu ñu fi accaparer suñu suuf ci façon boo xamante ne neexunu mënuñu ci dara ñu nu doon doomi dëkk bi ci wàllu foncière u Sange jeunes yi bëri nañu mais pour l'instant nii ku fi bëgg am parcelle da nga ci bëgg da nga ci xeex ba bëgg a dem gendarmerie loolu leer na ñëpp li ma ciy teg mooy li jëm ci wàllu jigéen ñi ak yenn jeunes yi yoo xamante ne presque da leen a da leen a ko wax danaa ko wax te dee parce que am na ay jeunes yoo xamante ne ay ndaw yoo xamante ne jàng ba yor seen diplôme ñu nangu di leen corrompre pour ñuy dundee sange or ko nu war a dundal sange ak ay jigéen yoo xamante ne si ñoo leen di ñoo ngi leen di ñoo ngi jox seen seen moroom a ngi leen jox seen i kàddu pour ñu leen di waxal seen doléance ñu nekk du dundee jigéen ñi seen ñekk au lieu nu demee seen kàddu ci fale leen di loo loolu lu ma metti la te loolu doon na loo xamante ne lu nu war a jële fii la kon jeunes yi il est temps pour ñoom ñëpp ñu jóg xam li nu bëgg ak lu nu war a bañ parce que jot na naxe yi doy na bon yàq gi ci sànge doy na sànge dem na ba fu nekk ni ONG mënatu fee dugg ndax maire bi fi nekk nañ ko wax projet bi fi ñëw bu jaarul ci loxoom da koy da koy jóg ci suuf du dem bari na projet yoo xamante ne jaar na fi mu jóg ko ba léegi mënta ant loo tax saa ngi mënta dem fenn nañu waxante dégg ki fi nekk maire de 2012 à léegi lan la fi defal Sange loo xamante ne ma na see teg bët du éducation du santé du sport du dara demal terrain Sange

dafa neexut a wax na dafa neexut a wax parce que boo waxee ñenn say mbokk ñoo lay ŋaññi te mais c'est vrai que sonn nañu nañ ko wax te dee nag waaw il est temps que nag ñu jóg jël kii nga xamante ne mooy kii jëmale sange kanam jëmale Jobaas kanam ñu fal ko mooy sunu leader Jean Baptiste Seck maa ngi koy sant di ko ñaanal ci volontariat bu mu am mu volontaire ne man dinaa taxaw pour jéem a yootu maire bi ñun nag ñoo ngi ànd ak moom. wàllu nag dama naan ñëw na Sange ci heure bi mu fooree ñëwee parce que Sange sonn na Jobaas sonn na loolu maa ngi leen koy xamal madame Hélène Tine ak monsieur le ministre Abdou Mbaye Jobaas sonn nañu accaparé nañ sunu suuf mënuñ ci dara fu mu nekk nii loolu nag bëgg nañ ku ñu ci dimbali bu baaxa baax maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. nag ngir euh, wurlu Sange Jobaas rek alhamdulilah rabbil alamina ba ñu mobiliser wu ñun pour Sange li fi nekk. waaw ginnaaw bu loolu jàllee maa ngi nuyu euh, suñu premier ministre Abdoul mbay ak euh, suñu député suñu yaay Hélène Tine di nuyu Adama Diakhaté ak ñu mu àndal ñëpp deen nuyu deen sant baax a baax baax ah man yàlla def naa jawaas kenn xamuma ci li ko waral a mooy naxa yi ñuy nax yàlla def na dañoo sonn ci nax yi ñuy nax tax ah, bi ñu ñëwee ma gis arama ah, ak ah, Sambatis ni ñu andé lool moma duggal ci politique buñ ma aggé mané ko lool man ma seen ginnaw ma ñëpp nak ñu dëkk ci dëkk bi muy kër mamour Mbodji di Dakar mbay mobiliser nañu ñun ñëpp pour changer li fi nek parce que kër mamour Dakar mbay ku ko xam xam ni digganteem ak tel bi dem Mbour même pas 1 km ñaata ak bu tawé pour suñu auto yi jógee fa mëna dugg ci dëkk bi sax problème la Alioune Sarr daf ñuy utiliser bu élection jotee ñu ñëw bu ñu ko gisee tey élection moo ñëw ñi ma àndal dëkk bi yëpp samay collègues lañu ñooy ànd mais wax naa leen ba tàyyi politique doxe nii lu leen def nañ ko mais changement amul léegi nag ñun dañoo jóg uniquement pour changer ko suñu bopp ni ñu koy changer mooy lan kër maamu Dakar ba ñun ñëpp mobilisé wu nañu pour jëlee fi fi nekk niñ ko fi jëlee mooy wote mooy wote parce que man nima ci mel non la ñeneen ak ñeneen mel politique li moñ fi li moñ ci duggal li moñ ci duggal pour changer jobaas moñ ci duggal te met met bi yëpp wa jobaas yëpp ñoko bok te doomu jobaas man nañoo defar jobaas ci kaw fi nekkon and ak wa jobaas di diisoo ak ñoom di waxtaan ak ñom kon na nga ni jobaas changé da parce que ñu bari na lo xé ni ñi koy liggéey jobaas amna ci xam-xam bi amna ci xalaat bi liggéey ci lu bari ndox ken war ko la jambat jobaas parce que xamna ci lu bëree bëree bëree bëri te développement jobaas yaakaar naa ndox moko yor te ndox amna fi kon ginaaw ñu ñu gis lool yépp tay ñun ñëpp nañu and ñun wa jobaas mobiliser wu jëlé fi li fi nek ken mënu ko fee jëlé de ñun ñoo fi mëna jëlé niñ ko fi jëlé moy ñu wote wotel sans baptise mu jël maire bi ñu and ak mom doxal kon ci fi nek na dem na dem a dem a dem. ñun ñëpp ñu ànd ñu liggéey jërë ngeen jëf. merci sëñ waa jiital ci nuyoo bi kilifa Sange yi sunu papa yi wax nañu sànq di nuyoo kilifa diine yi di nuyoo monsieur le ministre ak l'honorable député LNP sam wax nag dama ci dul sori au nom de Walu Diobass la bugg introduire. ah Jean waa Sange sas nañ la ou bien yaa sas waa Sange vraiment mobilisation en fait dans lool coalition mu ngi koy rafetlu lool di leen remercier di leen xamal la mobilisation commencé na bés ni ki tey jusqu'au 23 janvier la série d'hommes Jean Baptiste Seck Seck moom la ñuy le 23 janvier nuñ ko le faire le 4 décembre. le 23 le 24 ñu defeet ko noonu biir saage fekk mbooloo bi yëpp taa ci ruux bi benn. ah oui bëgg de yéen nag yéen a mën a jàppale seen gens coalition Wallu moom mu ci ginnaawam duñ ci tayal daara te fas yéene koo def jusqu'au 23 janvier yàlla may ñu ndam ah lu fi nekk nag. à la mairie là il dit que ça peut-être que Jean ne me laissait pas partir mais si tu n'es pas de l'AFP nous la considérer il y a poste bon poste mais tu n'es pas de l'AFP nous la considérer Commissaire éducation pour ko yore resuñu ko avons ñooy jël nous avons tegal ko j'en profite pour remercier mon inspecteur lui pour le ah lu mu c'est la triste réalité. Aliou a été élu pour regrouper tous les soi, mais malheureusement il a nga nekk xëj na la kii pas PDS tax na la lay doxale la mère, non, lay nous ah a suñu mbay wax que nous mbay carte massivement à la coalition les Djobas. incha allah yàlla dina ko def te yàlla na ko def incha allah lii lu ma ci wax wasalaam. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu ñi bi chef ñu ngi koy jox nuyoo bu baax baax du nuyu premier ministre Abdoul Mbaye ñu ngi koy jox wàccuwaay bu baax a baax du nuyu suñu référence. wàllu Sénégal waaw wàllu Jobaas muy Eden Tine député ñun jigéen ñi Jobaas moom mooy suñu référence moom ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu suñu leader ki ñu am ci moom yaakaar ki nga xamante ni moom la ñu ngir mu suqali Jobaas ki nga xamante moom la ñu ngir mu indi changement de Jobaas muy Jean mo bëgg ngeen tacc loolu Jean ñi ngi lay nuyu di la jox sa way waaye di nuyu ki nga xamanteni mo waral li muy suñu doom di suñu jëkkër di suñu xarit di doom kii ndëkkër ré muy Adama jaxat ñi ngi koy nuyu bu baax diko jox wacc wayam ma sha allah suñu xel dal na coalition bi ñu andal muy Wallu Jobaas suñu xel dal na bu baaxa baax ndax ñi ko séq dañoo doon ay góor doon ay jàmbaar doon ñoo xamante seen loxo dafa set wecc macha allah kon ñun am nañu yaakaar ah suñuy wax nag liñ ci li nga xamante moom lañ ciy tënk rek dañ koy jëmale tuutee suñu mbokku jigéen ñi ndax macha allah ñun jigéen ñi dañoo yomb nax tey danoo gaaw a fàtte ndax fan yii ñu weesu damay gis Alioune Sarr di woo ay daje di yëpp ci cadre di leen yóbbu këram di woo ay financement douze ans fan la financement yi newoon douze mois dama ni fan la Aline newoon ba toog ba nëgëni wi doog a joxe financement kon ñun doona war a yeewu doona war a xam lu bëgg ndax ku toog douze ans di ci ndox ci yoon ci santé bu ñu toogee ba dernier mois ñu la yëpp ci kaat di wujji man ngaa wujji de ndax lañ lay jox yaa moom dama ne bu demee lekk leen bu leen joxee Yen yéen ko moom waaye nak bu jour ji ba na kenn ku ne téye carte denc ko fu wóor lu la wax nga ku la nga ku la demal bu si nga jàpp mooy lan sa carte ba jour wala wax affaire ah bu ko defee ñuy jamale kàddu yi foofu dafa xaw

duñu wor nak ñom duñu wor te nak ñun dañu am ku fi nek ñu fal ko falaat ko fal ko ñaari yoon muy ñew di laajat benen mandat ñun ñu xaar suñu tànk tubay comme niko suma frère suma ami Pierre waxe dëkk bi dama fu bari ay xarit souleyman sen mang koy nuyu mangi jëm bi gën aduna barki dem yalla na yalla xara jëna waye di leen wax ne ñun takku nañu taxaw nañu te nag Sar Sarr kuy rek mom da ngay am fit bala may dé mu nan fi aw ma fi adversaire lu mu ko jaral rek jaral nañu ko dama né président Abdoul Mbaye moy suma mentor président Abdoul Mbaye Moy suma référence politique way abdoulay wad moy ki nga xamni ci lay jangé politique man dama lan ni politique koy def tay da ngay ñëmé da ngay am fit deuguer Ku dem ba mu jeex loolu nag waa Sange waa Jobaas maa ngi len di dénk bala may gëna a li am solo rek moy lenn ñettelu mandat dañ ko fi téré amatu fi li ñi bañal Macky Sall ni ko suma tata elen waxe gëru lañ koy waxe waat duñu ko nangul alim sar na na fal nañ ko falat ko liñ ko don laaj defu ko doy na kon du ma guddal li ñu war a bëri na dinañ am temps ci mitin yi nii def gën a waxtaan ak nit ñi damay bàyyi kaddu gi rek Pierre présenté suñu tata l'honorable Hélène euh, député Hélène Tine bi nga xam ne suma yaayi bopp la dama bëgg ngeen tàccul ma l'honorable député Hélène Tine tàccul leen ma ko bu baax a baax a baax a baax a baax leen ma ko di sant nag di gërëm le premier ministre Abdoul mbay premier ministre Abdoul mbay dama gis ci moom qualité yoo xamante ni bii gis naa ni bu ñëpp ñi duggoon ci politique mel na li moom Sénégal defaru na bu yàgg parce que soxlawul dara yi Sénégal li mu bëgg rek moom mooy jëriñ Sénégal waaye soxlawul ni ko politiciens yi dafay ñëw pour jëriñu mais pas pour servir Sénégal jërëjëf premier ministre jërëjëf jërë ngeen jëf maa ngi foofu.